donc je me vérifié que le euh, ministère de des finances a ñoo def communiqué boobu noonu euh, je me suis rendu compte que ni ce communiqué est inapproprié par rapport à li nga xamante ne parce que nous ñi ngi wax ay waxu saisir yeggaguñu foofu alors euh, bi nga xamante ne Ibrahim Abdou Khalil Bibo boobu Bourgi ñu ngi ko doon daan yàlla def na ne na tamit à l'époque c'était en 2014 def naa une publication bu rappelé sur Facebook c'était le 2 septembre 2014 euh, ma tuddee woon ko pour l'honneur de la justice sénégalaise nga gis pour euh, ni mu tëddee woon euh ak créé ni mu mel. Euh, et j'avais dit à l'époque que ni l'État du Sénégal n'a assumé toutes les conséquences de cet acte là parce que xamna né ñom ñoom ñaar ñëpp. muy Karim muy Bibo muy Pape Modou Pouy muy ñeneen ñi su ñu décision top l'affaire sur le plan civil parce que tu as bien fait de rappeler convention judiciaire entre Sénégal et la France mon moo waral tey maître Olivier Sur euh, Juan Blanco, war xalaté ñeu fi pour plaider parce que il y a des conventions judiciaires ñom maître El Hadj nous euh, maître Moussa Diop ñeneen war mëna dem France pour plaider donc euh, convention judiciaire bobu noonu amna mais aussi au-delà de de la convention judiciaire parfois mën na am décision de justice au Sénégal ñu dem appliquer jiko en France lolu day soxla une ordonnance d'exécution euh, ordonnance d'exécution décision bu euh, Belgique nous appliquons au euh, Sénégal mais à chaque fois damay restreindre l'affaire de ne ci la matière pénale parce que c'est un droit de souveraineté mais ça ne veut pas dire que ni la matière pénale je dis mais je ne parle pas de la matière civile je ne parle pas de la matière commerciale ne ni pas Bachir Fofana nek sénégalais takk euh, loi dans l'espace des maintenant la question du droit applicable loolu bo démé ci euh, législation yu yëpp amna lu ñuy wax règle de conflit alors tay ni Pape euh, Bibo Bourgi Il faut continuer la procédure parce que état du Sénégal ben démé France pour bëgg saisir les biens de Bibo Bourgi France dañ leen némé mais attends de quoi vous parlez là ñu ne ko non CREI lu lolu ñu ne le délit d'enrichissement illicite nous ne ñun xamuñu loolu le moment waral Sénégal n'a pas pu exécuter euh, li nga euh, euh, dommage intérêt à ci parce que dommage intérêt si nous né c'est l'affaire civile civile mm-hmm. amende au moment pénal mm-hmm. mais boobu civil maintenant ñu saisissons saisir juridiction internationale bi nga xamante mi les questions de commerce international euh, Bibo euh, euh, saisir mais toute la procédure yi ñuy wax sur le plan pénal buñ sur la table le juge français ne sait pas à condition yi nga jugé les droits de la défense n'en parlons pas parce que li waral justice française nangam nangam xamna vais actualiser l'article que j'avais fait à l'époque euh, la justice sénégalaise a l'aune euh, des standards internationaux Lol yoon nous fi en retard pas le système judiciaire mais CREI donc c'est normal nous dem euh, ñu jox tribunal arbitral de Paris Nous jox ko l'état état du Sénégal nous moo pourvoi en cassation. L'état État du Sénégal moo def pourvoi en cassation donc kon état nangou woon na daan bi ko daanoon c'est ce que ça veut dire parce que euh, gis nga euh, euh, Ousmane Sonko defee pour voir cassation ñu ah, kon nangou na décision bi bob mom mu ñëw mu ne ah samay avocat dama len di bay ñu def seen liguey kon pourvoi cassation bi limi findel moy nangou nga jugement balé et agent judiciaire de l'État il était là-bas pour défendre les intérêts euh, pécuniaires de l'État du Sénégal mm-hmm. léegi nag État du Sénégal pourvoi en cassation nga dem pourvoi en cassation ñu daan la mais da ngay fay. mais mais est-ce que. Euh, la décision devient définitive. est-ce que mën nañ ko imposer parce que ñom ñi ngi wax seen communiqué na. Sénégal dafa am li ñu koy wax légui souveraineté d'exécution xaw ma. waaw kon lu muy wuti pour quoi kon. bu dee dafa am souveraineté de juridiction mais état du Sénégal ñaata yoon lañ ko traîner devant le tribunal arbitral de Paris euh, Franck Timis yóbbu woon na ko avec euh, bi ñu joxee euh, kiiwam bi total. waaw ñu dem Sénégal waaw donc kon euh, euh, le Sénégal est justiciable euh, foofu noonu yàgg na fay dem di saisir yàgg nañ ko fay dem di ko fa yóbbu donc mon mot def déposer pourvoi à cassation ci loo xamante ne léegi tënku la sa yoon new ci loo fay wuti bi pourvoi ji alors donc Bibo a raison léegi nak ñoo xam ndax dañuy def subrogation euh amel nga ñu nangam amel nañ la nangam nañu kii. loolu benn problème mais état amna ay bien France amna fa ay compte ah, est-ce que. la justice française mënu saisir bien yooyu ah oui parce que néna xam nga ñom dañoo dem ba affaire yi rëcc leen ñu naan non non non souveraineté ak nangam déedéet. Hmm. yow dem nga plaider nga fa et tu as perdu mais <laughs> dañuy appliquer cette décision de justice au-delà de la France ba ci Sénégal hmm. ah oui parce que euh, mais coopération judiciaire on n'est pas en matière pénale on est en matière de commerce international on est en matière civile alors décision bi ñëw nga défendre sa bopp boo gañe woon da ngay demander li ñu non waaw waaw nga perte kay parce que on avait dit à l'époque bu ñu que ni biñ ñu Bibo ñu ne saisir nañ ses biens dañ koy jaay vous vous rappelez

mais est ce que jarul. non est ce kenn du ko sañ a non est ce que jarul. je ne pense pas parce que lo xamantene yow ay avocat taxaw nañ ne ne lii boo ko jëndee nga ci lo xam mais euh, valeur marchande sax day wacc mais bëri na ay actions yu mu amoon si yenn yi mom état bu Sénégal da koo jël da ko nam oh c'est-à-dire xam nga euh amna amna amna am na yenn xeetu saisine yo xamantene moy gëna yomb ci état. parce que des actions ainsi de suite même euh, collège des actionnaires dañ naan saa yi boo génnul ñu sonal génnal rek bàyyi mu sedd mais bokul ak idée drop par exemple. tit foncier waaw. léegi yow euh ngay dem Basir yore ay milliards wara war a jënd ci Eden Rock te xam ne ak ci biir. mën nañ koo mën waaw donc il ne le fera pas. ndax moom je ne pense pas que Eden drop a été vendu donc maintenant bon li wér te moy état du Sénégal tant que dem na ba accepter plaider mom ba accepter moom mu introduire un pourvoi mais mom mo demander action à justice bi foofu. Nous donnons la réaction à la justice nous devons ko et récemment président Macky Sall nee à ce que les décisions de justice soient respectées si c'était le contraire nous bu doon bu boobu exiger donc euh, ça prouve que l'année ñu c'est 2014 nous modèle le ah oui <laughs> donc euh, rien de nouveau sous le soleil amuñu lenn loo waral da ngay def nga ne euh, tribunal arbitral bu Paris cour d'appel bu Paris euh, nangam wu ñu alors que yow nga dem fa ne euh, daan bii ñu la daan nangu woo ko nañ dem ñu waat ñu waaw ñeneen ñu attewaat ñu ñu attewaat la. nga ne doo ko nangu. d'accord Bachir que tey aujourd'hui bu ñu xoolee lii dal état